gone gu am ñaari at lañu fekk mu faatu ci ab teen ci quartier bu ñuy wax Cànd nekk fii ci ci Tivaouane xale bi nag talaata ba tey ñu ngi koy wër bu ñu sukkandikoo ci kii di maamam mi ko yoroon di yàq ba. mardi ci boori ay cinq heures ci la xew-xew bu commencé ndax damaa nekk moom ci néeg bi di seetaan télé ñu seetaan télé ba yàgg mu jóg man nga foo jëm tëddal nelaw damay fowe xale yi di sangu gisuma ko moo woo koy sang daal na ko demal seetal ma Baye Mbacke mu dugg ci kër gi ñëw ne ma maam gis ma Baye Mbacke ay neer daal laa toog ba yàlla dégg ñu naa Baye Baye tàbbi na ca teen ba Baye tàbbi na ca teen ba mardi démb di tey di soli faatu gone gii nag ki nga xamante ne moo doon roose tool bi nga xamante ne mook teen bi ñoo dend moo ko feeñal teen bi nag sori loolu dëkkuwaay yi Issa Thioune euh, sapeur jël na ko yóbbu ko hôpital ñun ñu kon ni dem police mais nag waa police tegaguñ dara ci ñun lu leer parce que ñu ngi ñu seen liggéey daal vraiment luus na li tax mu mooy